ñu booyal naanu bay bay bu alaaji xaadim waxee loolu nag da ngeen di maase taxaw ca kaw màggal maam jaara bu ko màggal yàlla nga tàggoog tànk yu métti booyal naanu maam jigéen ñi booyal naanu jaara ma maam jaara jigéen ñu booyal naanu maanaam sa laas ci soxna si jigéen ñi booyal nanu maam soxna jaara bay ba dinde maam jigéen ñu booyal nanu bay ba dinde jigéen ñi booyal nanu amoo morom maam jigéen ñu booyal nanu bay ba dinde liggéey bi nangu na jigéen ñi booyal nanu maam soxna jaara bay ba dinde maam jigéen ñi booyal nañu sunu liggéey bi nangu na jigéen ñi booyal nañu amoo moroom maam jigéen ñi booyal nañu bay bëndin de jaraama soxna si jigéen ñi booyal waa bay bani wajara mamam booyal naa se mu ndaxaane bay bani booyal naa na bay bani de bu sa jara mamam jara am jara mam yaa ko waral sa doom rëy karama mam jara mam musta am morom yaa ko waral sa doom rëy karaama ku sa baali jaara ba maam jaara maam jaara ma yaa ko waral sa doom rëy karaama maam jaara am morom musta am morom musta am morom yaa ko waral sa doom rëy karaama ku sa baali jaara ba maam jaara maqaama mu faral keroog keroog bisub xiyaama maam jaara am moroom musa am moroom te am moroom yaa ko waral keroog rëy karaama musa baali jaara maam jaara ku am maqaama ko waral keroog keroog bisub xiyaama root samaani jaara paa maam jaara ko am tey ay junni yaa ko waral sa doom jom fa jinne ko am tey ay junni yaa ko waral sa doom jom fa jinne samaani jaara paa maam jaara harful jërëjëfati mam jaara ma Mariama jaara yéeme jaara ma mam jaara harful jime jime jime soxna si yakal nga waaje gi yakal nga waaje re ba ñepp gi jël ma yaba fujoore waage joore masi baykat nga bay nga bay lay lay la la lay lay la la bay baninde baykat nga bay nga bay yaa di dandi jigéen ñi boyal na noo nga bay baninde ليلة العجل لغنا جارا هنا أرى ëllëg yërmande taxam sëñ Basiru batine ku dem ma dem yaay borom ku dem baloo yërmande yaa fi gën ku dem ma dem loxo te ko ñu màgg sunu xalifa waaye loxo te ko ñu màgg Seex Muntaxa Basiru yàlla na fi yàgg ci wér nu ngi la ñaan ba abada ay borom Tuuba lëkk yàlla sëñ Muntaxa sëñ Basiru ne na ku dem ma dem ku demul ma dem meloo yërmande Bamba isa maam Basiru yaa ko gën ma jaay borom ak du nal daal lëkk yàlla sëñ Muntaxa sëñ Basiru ne na ku dem ma dem ku demul ma dem